Thiénaba TV sunu yëf la kon ñoo koy bokk tax gannaaw ñetti at ci doxalin bu méngoog yoon interprofession kaju du Sénégal kaas mooy yeesalaat kaddu yi di dogal ci jàppale ay ndimbalam ni koy yoon ak li leen tënk santaane mu dëppoog lii di seen règlement intérieur ngir jóg taxaw tembe ci lu leen jëmale kanam tey ak ëllëg ikas fas yéene dooleel seen doxalin yaatal ko ngir képp ku si bokk mën say gis boppam loole mu leen di ibbil buntu jëfandikukaay yi ak ndimbal yi ñu teg ko si lu leer yi le coppite daan ko tàmbale fukk ak juróomi fan ci octobre atum 2024 ak lii di campagne d'information ngir ñëpp jot si ñu teg si ay ndaje ñii di teewal banqaas bu ne ñu jeexalee ko tabb ay njiit yu bees ci ab assemblée générale ñëpp ñi nga xamante ne bokk nañu wala am nañu yéene bokk muy producteur transformateur commerçant agrobusiness exportateur pépiniériste ak yeneen képp ku ci bëgg bokk ñoo ngi lay ñaax nga jege ngir ay leeral ñii may waaja lii Lamine Sarr mu di président commission système information ngeen mën ko woo ci 77 531 52 60 wala Awa Touré mu di assistante technique ngeen mën ko jot ci 60 77 736 07 14 wala Ibrahima Ndiaye mu di secrétaire exécutif ngeen mën koo jot ci 77 993 24 08 ICAS mooy gërëm ministère yu yor wàllu agriculture industrie ak commerce ak mboolem partenaire bu leen di gunge xàccendoo doorandoo def benn say ñu dem ci li nga xamante ni moo di processus de renouvellement mu doon lu am solos lool loolee moo nuy may ñu am gouvernance bu dynamique politique efficace bi nga xamante ne daf ñuy jox ay résultats ensemble construisons et façonnons l'avenir du cajou au profit des acteurs de la filière pour un développement économique souverain du Sénégal